salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar fi ngeen man di nekk ci biir réew bitim réew ñu tàmbalee xabaar yi ci mbirum Ousmane Sonko ana lan moo waral ba léegi retiré gul ay fiches de am donte am na ndam fële gen Ziguinchor li ko waral nag moo di attekat bii di Sabassy Faye mi nga xam ne moo ko moo atte woon mbir mi te jox ndam la wax jox dëgg avocat Ousmane Sonko ci liñ ko rajo woon ci fichier électoral bi moom mii nag agence judiciaire de l'État ko daal nag rekise woon jàpp ne mën a atte mbir mi ndax dafa am ak jegeñaale ak Ousmane Sonko mii ñoom sax yi yemuñu ci woon ci dogal boobu ay avocat yu état du Sénégal tamit ñoom it dañoo demoon daal euh, euh, def euh, cassation fële ca cour suprême loolu itam war nañu kaa lijjanti waaye daal li waral ba Ousmane Sonko mën a gudd jot ci fiche de parrainage am bu ñu sukkandiku kon ci xabaar bii ñu sukkandiku ci 221 moo kon cour d'appel bu Ziguinchor dafa war a wax ci mbir mi ndax li agence judiciaire de l'État di wax loolu lu ñu war a jàppale waaw wala déet en tout cas ginnaaw bi nga xamee ne dogalu atte bi wàcc wadd na fële bokk ci avocat yu Ousmane Sonko moom daal daa waxoon ne fi mu ne nii ah, candidature Ousmane Sonko moom amul dara lu ko mën a gàllankoor ba sax daal nee na suba suba mën naa dem récupérer ji exige de prévention waaye boobu léegi ko bokk na ci xabaar yeneen yoo xam ne da nga na da nga nangoo ci ay kàddu yu Amadou Ba wax bokk ci parti Pastef itam ne woon na bokk na ci la ko war itam mooy bi doonte da joxe na dogal bi waaye nag xaar nag mu daal di koy bind jégbal leen ndax ñaar parti bu da bu daanoo Euh, bokkut ak attakat euh, après da koy bind jox leen ko subaa nag kayit googu yi la ñuy mën a yóbbu ca DCA ngir mu joxe effet de dépendance waaye daal kon nee ñu euh, bokk na ci li waral loolu ma daal mooy cour d'appel bu daa bu Ziguinchor daa lijjanteegul mbirum réquisition gi nga xam ne réquisition nañ ko attakat bii di Sabassy Faye te agence judiciaire de l'État di koy def. le 6 Sabassy Faye fixé sur son sort ce mercredi ba tey ci mbir moom yi la ñu des mooy lu ñeel mbirum Ousmane Sonko. ak li ñu ko defoon muy rajo ko ci fichier électoral bi ay avocat wam demoon saisir cour euh, tribunal bu Ziguinchor ñu àtte leen jox leen dëgg coolo yi nag ba léegi daal jeexagul ndax kat nee ñu àllarba di suba cour d'appel bu Ziguinchor dina wax ci réquisition bi nga xam ne defoon nañ ko ñeel àttekat bi di si Faye nga xam ne moom moo joxe woon daal dogal bi alxames gii ñu génn ginnaaw tribunal boo xam ne yàgg na lool war naa toll ci treize heures ñu nekk nag di euh, lay ku nekk di wax ci sa boor ci ginnaaw bi nag moom mu daal di nag wax ne daal ay la yéwén Ousmane Sonko mii la ko def jaaruwul ba tax na kon sàkk nañu dugalaa ko ci fichier électoral bi agent judiciaire de l'État nag moom na booba mu a d'accord ci moom wërta àtte defoon nag daal euh, da da koy rékisi woon ginnaaw bi nag bi dogal bi waat waatdee ne ñu def nag ab recours ngir daal wax ne kii warul mën a àtte mbir mi ndax dafa daal di euh, jàpp na daal daal di far li ko waral nag moo di agent judiciaire de l'État daal nee na moom Sabasy Faye mii dafa am jege ñaar ko xam ne jege na ko jege ñaale na ko Euh, euh, euh, parti Pastef ndax li ko war a kat mooy rakkam rakkam day dafa nekk ci parti Pastef maanaam membre la ci waaye itam nekk association ci maire bu Ziguinchor agent judiciaire d'État jàpp na kon kon moom mii warul mën a atte mbir mi loolu yi kon nee ñu am na sañ na ko wala sañu ko suba ci àllarba ci la ci cour d'appel bu Ziguinchor di wax. Khalifa sàll approuvé la démission de ses députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi leader bu taxawu Sénégal di président xalifa Ababacar Sall moom day daal dinay d'accord bu baax a baax ci démission bi nga xam ne député yi fareek moom def nañu ko ci plateforme bii di groupe parlementaire wi Askan Wi waaye tam nag di wane contentement am ci ni ñu doxale mu jaare ko nag ci compte euh, euh, compte am ci Twitter daal wax daal maa ngi nag wane sama contentement waaye tam sama euh, ndimbal ci ñi nga xam ne ñooy député yu taxawu Sénégal ci nañu doxalee fee ci assemblée nationale. war nañ dëgg ne ñoom daal ñoom ñii ay responsable dëgg lañ. waaye tamit ay nit leen ñoo xam ne itam daal yu bëree bëri nag yu teelu leen ba tax na ni ñu ci doxee daal moom d'accord na ci te nag nee na d'accord na ci li ñu def mooy démissionné te dégg ngeen léegi ma wax leen ne euh, Ababacar Ababacar Aba Mbaye honorable député nee na Khalifa Sall ci boppam moo sàkku ñoom ñu génn mu daal di génn te Khalifa itam kon li wax dëggal na ko nee daal d'accord na ci te itam ñii ni ñu doxalee day wane na daal dëgg-dëgg ñoom daal euh, ay responsable dëgg lañu taxawu Sénégal weddi nañu tuuma ji leen di tuumaal ni dañoo nekk di négocier avec la coalition Benno Bokk Yaakaar kon ci wàllum politique la ñuy wax député yi bokk ci taxawu Sénégal bu président Khalifa sàll ñoom day ñu leen di tuumaal na jamono ji doo nekk dañoo nekk di dil seen digg ak coalition Benno Bokk Yaakaar ngir nag daal dugg ci seen biir euh, groupe parlementaire boobu yi ginnaaw ba ñu démissionné ci groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi loolu yi day dara amu ci ay manipulation kase la kaddu yi honorable député Aba Mbaye moo ko daal di xamle ci plateau bii di Presse Afrique TV nee na loolu daal amul ay manipulation rek la buñ sukkandikoo ci honorable député Aba Mbaye day nee na teg ci ca assemblée nationale permettre na leen nag ñu mën a génn ci groupe parlementaire bi ñu nekkoon dem bokkaat ci beneen groupe parlementaire loolu moom sañ nañu ko waaye nag teg ci itam moo wax ne su boobaa bu ñu ko defee itam foofa duñ ci mën a am benn po kon groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dem dugg ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ngir am fa ay euh, poste loolu kon manipulation la dara amu ci daal di leeral nag daal ne ñoom seen leader ci boppam di président Khalifa sàll moo sàkk ki ñoom ñu dimi ñu démissionné ci groupe parlementaire Yewwi Askan Wi léegi nag nekk ay député non inscrits maanaam daal jamono ji ñoom ay député la ñoom ñu nekk taxaw Sénégal toll nañ ci treize waaye nag ñoom bokkuñu ci benn groupe parlementaire kon euh, euh, Aba Mbaye weddi na wax yooyu ñu doon wax ñel leen après Mayoro Faye un ex-libéral et ancien ministre retourne au PDS ginnaaw dellu si Mayoro Faye ci biir parti démocratique sénégalais mu quitté woon nag ci parti bi ci élection législative yi ñu génn ak ñàkk déggoom taxoon mu def ko am na nag keneen koo xam ne itam jóge woon na ci parti démocratique sénégalais dem fekki président Macky Sall moom day ne ñu ñëwaat na ñibbisiwaat na kooku du kenn ku dul Kalidou Diallo Kalidou Diallo mi fi nekkoon ministre ministre de l' éducation ki jamono président Abdoulaye Wade ne nag dellusiwaat na ci biir PDS parti démocratique sénégalais lii nag lépp mi ngi bokk ci liggéeyu président Abdou Karim Wade te mooy daal fexe ba ñi nga xam ne nekkoon nañ ci parti bi te demoon mu di leen indiwaat ngir ñu àndandoo nag ngir wuti ndam. moom Diallo day nee ñu dafa quitté woon ci euh, euh, formation politique président Abdoulaye Wade bii daal di nag dem fekk président Macky Sall moom mooy xam le ni daal dafa am benn commission boo xam ne nag ma ne daal dalal naa ab commission. boo xam ne dañ leen a missionné ñu bàyyi ko ci président Abdoulaye wadd ak ki nga xam ne moo di euh, président Abdoul Karim euh, Wade aljuma ñaar fukki fan ak benn ci weeru sulet bii ñu génn ñoom nag ba nu ñëwee daal lan sàkku ci man daal mooy nee ñu dañoo bëgg ma dellu si waat ci euh, PDS liggéey ci wetu président Abdoul Karim Wade nee nag ba nu xëyee suba Abdoul Karim Wade ci boppam daal di may woo ngir daal sàkku ma dellu si waat ci coalition bi léegi nag bi ñu ma waxee loolu rafetlu naa nag doxaliin wi waaye dama leen waxoon ne may leen man ak ma xalaat waxtaan ak président euh, Macky Sall du lu mu xam xamle ci biir euh, euh, course xabaar gi di l'observateur ñu joxe xabaar bi léegi nag ginnaaw bi na kon moom nee na dellu si na ñu laaj ko nag lan moo tax yow nga choisir Abdoul Karim Wade waaye choisiroo président amadu Ba mi nga xam ne moom moom la ñu tànn comme mbër coalition benn bokk yaakaar kii du jàll moom lii la daal di tontu nee day man li ma jàpp mooy président Macky Sall def na ci réew mi fukki at ñaar. kon mission am ci réewum Sénégal jeex na Sénégal nag fi mu ne nii dafa am droit nag am benn alternance am beneen alternance am yeneen ñi loxo yoraat ko ngir nag daal ñu war a mën a am euh, euh, changement te jàpp na nag changement boobu ñu bëgg tey jii nag nee na Abdoul Karim wadd mooy ki ci gën a placé ngir daal mën a gagné euh, président Amadou Ba rawatina nag bu fekkente ne Ousmane Sonko bokkul ci élection yi moom daal jàpp na ne bu Sonko bokkul président Abdoul Karim Wade képp mooy ki am capacité ci réewum Sénégal président Amadou Ba. cent cinquante prisonniers en grève de la fin à la prison de Ziguinchor téeméer ak juróom fukk ci ñoo xam ne dañu leen tëj ca kaso bu Ziguinchor nee ñu tàmbali nañu grève de la faim mooy dakkal ak lekk démb ci altine ji fukki fan ak juróom benn ci weer octobre bu nu sukkandikoo ci secrétariat exécutif national bu FRAPP di honorable député Guy Marie Sagna ñoom dafa am lu ñuy naqarlu ba waral ñu jël dogal boobu yi la ñuy naqarlu day nee ñu mooy yàgg gi ñu yàgg ci kaso yi te kenn du wax seen ay dara waaye itam woote bi ñuy woote téléphone ngir jot seen ay mbokk lañ leen ciy fayee ko daa seer ndax unité bu nekk ci téléphone bi cinquante franc la ñuy fay waaye itam lekk gi nga xam ne ñu ngi koy lekk ca kaso ba itam lekkin la woo xam ne daal qualité bi des na loolu na tax na ñoom ñi jël dogal sax bu bokkut ak grève de la bi mooy daal dina nag boycotté woote téléphone daal bàyyi nañ ko waaye itam visite yi itam daal di nañ koy dakkal ne daal duñu dem euh, duñu jëlati benn visite ci communiqué bi nga xam ne waa FRAPP daal nañ koy génn itam ña nga xam ne ne ci kaso bu Ziguinchor am na fa ñoo xam ne ñu ngi leen fa tëj depuis euh, la cinq euh, dëkk ci manifestation politique yi ci réewum Sénégal ca ñooñee am na ko juróom ñoo xam ne ay mineur lañ am daal amaguñu 18 ans kenn ki mi ngi wax turi turu Sosef Via Mendy 17 ans la am nee ñu ma ci kaso ba Samsidine Mbay 16 ans la am di fukkat ak juróom benn nee ñu ma nga ca kaso ba Ahmadou Cissé 15 ans la am euh, fukkat ak juróom nee ma nga kaso ba Aliou Mané 17 ans fukkat juróom ñaar nee ñu ma ci ca kaso ba ale Bassem 600 la am fukk ak juróom benn loolu yi daal ci communiqué bi waa FRAPP xamle ne ñoom ñii ñëpp ay mineur lañ te ñoo ngi ci kaso bu ñu daal leen ji tëye FRAPP ba tey daal moom di gën a wax wax nag ak njàqareem ak njaaxle ci kaso yi réewum senegal ba tax na sax nag ñi ngi waxaat ci daal euh, loo xam ne daal jamono ji jaaxal na leen lool muy nekkinu lenn ci jigéen ñi nekk fële ca kaso bu camp nga xam ne daal foofee juróom-ñetti euh, wala bokk ci juróom-ñetti euh, foofee ca kaso bu camp pénal lañ bëgg wax nee na nee ñu lu toll ki juróom-ñetti fan am nañu fa nekk di amal grève de la fin ba léegi itam daal kenn waxu ci ñoom dara FRAPP di sàkku cata di Sénégal moo nag bàyyi xel bu baax a baax gën a xoolaat nekkiinu jigéen ñeek ñu nekk ci biir kaso yi daal ngir léeg taxawu leen ci 37 sa prison yi nga xam ne ñu moo nekk ci réewum Sénégal ba tey secrétaire exécutif national bu ah, FRAPP di fàttali daal ne ñoom daa ñu nag def benn lettre de protestation yónnee ko nag fi nga xam ne kon moo di administration ngir nag naqarlu dundin wu doy waar wi nga xam ne jàpp na dundin wu jaadu te doomi réewi Sénégal yi nekk ci kaso yi di ko dund. émigration clandestine deux pirogues avec à bord cent quarante et cent trente trois migrants en Espagne. ba tey ci xabaar auditeurs yi Mouhalim Info dañu wax ci wàllum tukki mi ci jaarul yoon muy émigration clandestine bi nga xam ne ay xatar yu bare bëri mi ngi ci maanaam ay jafe-jafe yu bëree bëri mi ngi ci ay bakkan di ci rot ñu bare bëri nag di ci dund loo xam ne daal doy waar la. ba fan yii sax dégg nañ ñu bare bari àgg ca Espagne waaye ñu jëlul dogal dellu sareen fii ci réewum Sénégal terewul daal ba léegi day mel ne xale yi réewum Sénégal ñu bari ki ñoom seen ay gët ña ngi ko teg foofee léegi nag am na yeneen ñaari gaal yoo xam ne àgg nañu fa bu ñu sukkandikoo ci taskatu xabaar bii di Elena Maleno Garçon taskatu xabaar la bu nekk fële ci Espagne da koo xam ne daal dafa spécialisé dafa spécialisé wu ci wàllum migration moom muy xam ne ne kon ñaari gaal ñëw nañ yoo xam ne benn bi 140 personnes la def muy téeméer ak ñeent fukk beneen bi def 133 di téeméer rek fanweer ak ñett mu xam ne na kon bu njëkk bi di bi defoon cent quarante personnes am na ca benn jigéen ak ñaari xale yoo xam ne daal gaal yi Sénégal la ñu jugee ñoom nag ña nga ca euh, Tenerife waaye ki ñooñee nag am na ci koo xam ne euh, benn waay ak ñaari mineurs yi euh, ñaari mineurs ak benn jigéen ñoom dañoo resté nag ca île ba wax El Hierro foofu la daal di téye ngir xëy na ay wàllum jafe-jafe yu am ci yoon ak yu ni mel ci poste bi nga xam ne def na ko moom journaliste bi nga xam ne xam maanaam daal dafa spécialisé ci wàllum migration xam ne daal ne itam nag am na beneen convoi boo xam ne itam 133 euh, personnes muy téeméer fanweer rek ñett yi ne ñu juróom-ñetti jigéen a nga ca ca convoi boobu yi ñaari mineur ñoo xam ne seen at tollugul amagul fukkat ak juróom-ñett ak ñaari bébé ay xale yu ndaw yoo xam ne itam yëpp ci réewum Sénégal lañu euh, jugee xabaar la bu nu sukkandikoo ci Sénégal 7 164 personnes interpellées à Saint-Louis ba te ci wàllum immigration clandestine bi la ñuy des ndax kat ni mu amee am ni mu amee ay nit yu dem ba àgg noonu la amee ay nit yoo xam ne dañu am yéene dem waaye du sotti ndax kilifa yi ñu leen di gàntal jaare ko ci opération bi ñu amal ngir fexe ba xeex ak phénomène bii bu ñu sukkandikoo ci seen yëpp nee ñu altine bii ñu génn di démb fukki fan ak juróom benn ci weer octobre base navale nord bu euh, euh, réewum Sénégal daal nañu nag amal benn opération fële ca Saint-Louis loolu nag permettre na li ñu war a interpellé toll ci 164 candidats téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent yu bëggoon dem ci euh, tukki ca Espagne lu jaarul yoon ñu gàntal seen aw yoon ñu ngi ko jaarale nag ci benn daal euh, opération wala bokk waaw patrouille terrestre patrouille terrestre maanaam daal jaar ci géej gi dañ leen euh, gëstu ba gis leen daal leen di wàññi ba tax na sax ñoom ñi nag daal leen nag jox état du Sénégal ñi nga xam daal ñoo yor compétence ñoom la ñu dénk lu ni mel jébbal nañu leen ko ngir la ci war ñu daal koy def